waaw ñoo toog ak Lamine Golo eh, Lamine Golo le 7 août ñëw na de presque un mois moo si de un mois ak jour ay jour est-ce que sa mbër exactement par na est-ce que Balla Gaye 2 pare na ginnaaw biñ sante yàlla jël si yoon bi sant suñuy waar waajur sant àdduna monde entier waaw ñu ngi ci liggéey bi ndax la set pour nga wax des na xam nga loo xam ne ni yegg yeggagoo ci moom pare da dangay liggéey ba bis ba rek ba suñu borom may ñu ndam lañ siy doog di pare di pare mais ngay tontu ñi nga xam ñi ne Balla Gaye de entraînement am dafa des foo ko fekk mu ngi si téléphone bi moom lay yor entraînement am dafa des loolu la nga siy wax. c'est que nit ñi liñ gis rek la ñuy wax mais tey sa waay moom li ko warloo dëgg ak li muy liggéey. Hmm. mu ngi koy liggéey ak boole seek nëbbatu ak séeréer bu méttee métti. Hmm. c'est que nit ñi nag ñooy wax. Hmm. mais incha allah rabi su kàttun sunu borom la seetlu su simmee ko. dinañ xam ba xam kii daa tëddoon di nelaw. yooyu yow da nga gis ne Ba Balla mu ngi am en pleine forme. non mu ngi ci bu baax a baax a baax a baax. est-ce qu'il est en pleine forme. liggéey trois séances ba pare di nekk nekkoo en forme. Balla ñett ñett séance lay liggéey. waaw séance yooyu nu muy demee. mu ngi yow fajar di dem di kan lay àndal. ñëpp mbëri. Hmm. raxam Sa Thiès fils de Balla ñoom ñoo ñëpp mu ngi ànd ak ñoom di dem. waa après bu defee géej su paree jóge dem sa paree dem salle musculation. si hmm. gii olympique club. Hmm. pare entraîné pare tamit ngoon gi. mu ñëw si école bi léeg mu dem footing. kañ kañ non yàggul àjjuma ah, rek Omar mu ngi ñëw. mu ngi ñëw entraînement mu ngi ñëw entraînement kay. Hmm. mu ngi ñëw bu baax sax. arbitre siffle Gris Bordeaux dem agressé ba Balla. non loolu ay wax Gris day wax noonu rek naan ay conf day bluff rek. du agressé Balla jàppoon nañu. non non sa li muy daj nii su fi nekkee di léwtoo Gris sax man damay yaakaar daf ñuy yàq. Hmm. na ñëw rek def na mu ko daan defee. suñu hmm. borom antu ci daal. ku si agressé nar a agressé sama Omar ay def lépp. Balla hmm. mooy def lépp mooy bëre mooy xeex mooy duma mooy daan. Hmm. incha allahu rabbi. làmb ñett moo am. Hmm. victoire bu Balla amee victoire nu muy def si yow. du ma bett man. du la bett. man nee naa leen ba tey du daan kenn mu may bett si làmb. Ah. du ma def surprise parce que xam naa ko. xam naa qualité yi nekk ci moom. c'est que ay tolof tolof mooy ñëw rek. ak dogal ak sunu borom. mais gars yi fi nekk di wax yëpp. waaye su entraîné rek liggéey teg ko ci yoon. moo man niil nag mën na nekk. non non gëwuma ko non loolu du ci am moom. du ci am non non. daanu ci kanamu Gris Bordeaux nag. non yàlla te loolu dama ciy débat loolu daa mën a ne. waaw ah, lu tax mën a ne làmb dëggoo li la wax ñett la loolu xaw ma waajoo nekk ay. Eh. Hmm. kooku nekk TikTok yi daal loolu mënut a nekk. mënut a nekk. Gris Bordeaux tey jii Balla ngay su daanee Gris Bordeaux. Hmm. dañ ñaan xamoon nañ ko. te ah. su ko Gris daanee dañ ñaan ko. Oh. Hmm. fuñ jëm loolu daa mën a ne. xanaa day bàyyi laamu. non mënul ne du mënul ne loolu du si débat lu mënta ne doo si débat. ay lu tax mënoo si débat laamu ñett moo am défaite victoire ak nul. Seydina Mohamed xam na loolu lépp dëgg la mais Gris Bordeaux daan na Balla Gaye loolu du lu may gëm. tu hmm. tooguma sax di ko xalaat moom. sa waay lii mu nekkee nii da yéex a nekk. te wax dëgg yàlla mais mais bu amul nekk Balla Gaye andiwul mois de janvier waaw incha allah rabi combat bi di ngeen xam ku liggéey ku liggéey nee maa ngi liggéey hmm. ak entraîné na jarul di wax hmm. su simmee koo nag hmm. yéen yàgg ngeen si làmb gis ngeen bër mu ne di ngeen gis ni liggéey na waaw bu yàggee si kan la gën a arrangé combat bi su yàggee arrangé na si Balla suy gaawee arrangé nañu mais ñun ñoo fi nekkul si kàttun sunu borom fas yéene ñoo bëri combat bu yàgg ak Gris Bordeaux ak Gris Bordeaux combat dix secondes une minute dama une minute la ñu liir ko tuuti yaam ma gën a xam mhm. xaw jaabanteloo ko tuuti ndax Gris dafa xaw a pataas si combat bi mhm. kan appui mën na si am l'essentiel daal lu leen wax Balla wax dina toog ci biiram mhm. Balla dina toog ne photo leen si kàttan sunu dama ñëw na da ngay naan sa ataaya rek ñëw toog fii gaañ gaañ di di kii non xam nga tey jii li sam problème man liggéey laa wax dëgg yàlla bugguma di wax tey jii xam nga gars yi dañuy yóbbuwaate var te sa waay ci li mu nekk nii man xam naa ko li may wax nii waxantuwuma ko ñu ngi àndandoo di nekk di liggéey kay mu ngi liggéey su woon doole ma laajee du ma wax damay taxaw rek wax gàttal lépp mais mu ngi daj coono yoo xam ne ni ku dul biir gi tey jii mooy loolu su ko neexee sax man Gaston su ko neexoon na ñëw teg ñett ñëpp mu jeexal combat yi benn yoon. Hmm. si benn jour bi. Hmm. Dakar Dakar dina sax ñaari yoon indi booy ñaa indiwaat Eumeu Sène. Hmm. ak Gris Bordeaux ñoom ñett ñëpp ngeem ñu bëri ko benn fan. bëri ko benn fan. man nii saa waay nekkee nii. mën na mën na ko. Dakar dina sax ñaari yoon. luy loolu. Umar. Dakar mooy lan. Dakar soo ko màccee tey kay suba soo ko màccaatee yëg ko. <laughs> waaw waaw. ay Dakar du saf ñaari yoon loolu ay waxit la rek. Dakar soo ko màccee léegi yàbbi soo jëlee beneen Dakar saf ñebe sexaatit day saf. Hmm. kon ba Umar mu ngi saf ba léegi. amateur yee ko bëgg kooku mbëru askan bi la. si ni ma ko mën a waxee si gàttal. Hmm. gë gëj ngaa gis wala flan yi mun ngeen a jaar si kak flan wu gris. déggoo war daal mu ngi përe mu ngi def lépp. mu ngi hmm. nekk ak ay xale yu ndaw. ànd ak booy di leen jàppale. yéen a koy gis si Koba Thiat Daara Fall yeeg booy yëpp. mu ngi ñëw ci école bi. Hmm. mu ngi bëre mu ngi def lépp. nee naa li si des yàlla na yàlla mottali yéene rek. baa ngi fi. gàllankoor bañ a am. rotation Balla Gaye te may ko ci te ñi nga xam ne nii tey jii ñi ko war a may jàmm. Hmm. nañ ko may jàmm rek te ñaanal ko rek. rotation Balla Gaye 2 yaa ngi fi. déggoo li ma wax fi mu ne gudd fan rek laa koy ñaanal ak. Hmm. ana Adama Ngom. ñëpp a ngi fi. ana Thierno Gueye. ñëpp a ngi fi ñëpp gi ngi fi. Thierno Gueye bàyyiwul Balla. waaw luy loolu. waaw damay laaj rek. da nga koo dégg. damaa laaj. ah non donc may laaj loo xam ne laajaab luy Thierno Gueye bàyyiwul Balla Thierno Gueye ak Balla non dañaa gëj a gis Thierno Gueye si école bi gëj ko gis Thierno Gueye mosul ñëw ci école bi gëj na fi ay ati at Thierno Gueye daa yor liggéeyam mhm. diggante mook Balla mook Balla la mais mhm. Thierno Gueye daa yor liggéeyam yor ay mhm. soxnaam yor njabootam lu amul temps wu ñëw école bi moom apporté ko dara moom diggante mais combat ba est-ce que xam nga ne yow kati la kati moo waaw waaw waaw waaw ndax moo indi woon Yékini defe naa ñu daan waaw wala du Père Balla toogoon si du moom la waaw mais combat bi ñoo Père Balla maa mës a nekk si ginnaawam Père Balla lu mu mës a diisoog Balla hmm. ak lu mu mës a wax ak moom hmm. sama nopp yi dama daan fekke hmm. kon Père Balla mbër la moo xam ne nii àdduna ñoo fi nekk di wax rek mais Baye Balla sax mosu koo wax bëreel nii Balla li mu mel suñu ko def mbër mu jarul conseil la mën naa bëre ñeme na kay ñoo nekk di wax rek ñun dañ koy mottali tuuti rek mais xam na li ko war de te mu ngi ci bu baax a baax looy wax looy wax fan si Balla Gaye yi nga xam ne dañaa ñu découragé bari nañ de waa dara ñu wàcc rek te xam ne buñ découragé xam ne suñu borom hmm. mooy teg léeg-léeg ndog-ndog yi hmm. lii lépp ay ndog-ndog na rek hmm. xëy na li ñu naan yàlla su bëggee defar day mel ni kuy yàq di xool ñu dëggu ñi ak ñu jàpp ñu te yàlla tax d'accord ñun moom ak lu mënti xew ba ba muy bàyyi làmb ak lu mu mënti doon sax ñun ñu ngi ci ginnaawam ci lu mu nekk rek dañ siy nekk kon te ñun loolu lañ soxla bonne volonté yi nañ ñëw soutenir xam ne la sept incha allahu rabi. Hmm. nañ feesal arène nationale. Hmm. te xam ne liñ bëgg dinañ ko am si kàttan. te eh booy yéen découragé wu leen si Balla. waxal lu tax. Hmm? laa ñu si moom ba léegi. si lu tax ah? nga wax loolu. lu si Balla. Ah, kooku rek nga jox kooku rek. nga ah. mais lan ngeen wax ñi koy wax addu entraîné quoi. ah gars yi noonu lañ mel ay siisumaan lañ. ay siisumaan daan na fi ñëw de. ay siisumaan lañ nekk ay siisumaan loolu mu ngi entraînement kañ la fi gëj ah? kañ la ah, ñaata jours gëj na de mën na un mois. combat Gris Bordeaux est-ce que xam ngeen bu dangereux la ci déggoo de. ñaari yoon la koy daan comme ni mu def góor wala daan wala. une minute la. dañ koy dóor rek mu këpp. dañ koy dóor rek mu dóor mu dee. dóor mu këpp. waaw waaw. ñaata pa ñaata minute lay nekk. ah ah un minute. une minute un minute cinquante secondes. une minute cinquante secondes. arbitre bi arbitre bi siffle nan ngeen gisee combat arbitre bi siffle prix. wala bu tourné rek xamal ni da koy songo ji. su tourné su ko nee pang rek na. du gis du gis nga nu dem waa seen mu na ay waa ñii ne la waa seen TV. wala rek. du ko dóora bu dee ñii ne la waa TFM. wala rek mm. ah, kay daan